ngeen nekkee waaw bon man li ma dugal ci musique rawatina rab mooy bon dañ amoon benn ordinateur gàlle yàgg na dugal ci ay son wu ay son wu daara ji ma koy déglu affaire bi di ma neex affaire bi di ma di ma yóbbu fu sori donc benn quinze août 15 août 2008 ci laa jóge sama gàlle ne bàyyi ma dem marché Colobane régler lu ma demee defi quinze août quoi léegi donc fi ma taxaw di regle lu ma demee quinze août dégg benn animateur di teg ay son ci kaw mais ay instrumental la ma ciy teg ay parole waa daara ji affaire bu neex ma loolu léegi donc li ma waroon régler ma bàyyi ko dem jënd instrumental yi donc loolu moo ma dugal ci rab ma ñëw di ci exercer wu di ci exercer wu ba affaire bi nag mujj nekk lu nice ma koy teewal quoi whatever wax nga léegi ci say kaddu jamono yooyu ñu ngi tolloon ci 2008 ba 2019 euh, maanaam yow yàgg nga ci milieu rap boo dee dégg naa la. waa yàgg naa ci milieu rap parce que deux 2008 laa commencé rap commencé rap en 2008 15 août 2008 mën naa ne jour boobu laa dugg ci rap waaw ba 2012 après donc ma bàyyi 2012 laa bàyyi ba 2019 bi nii laa ko entamé waat nekkaat ci. nekkaat ci di ci teewal affaire yooyu yaa ma gën a xam. pratiquement xam nga da am fooy toll foo xam te ne soutien de famille nga yu bëri da lay war donc ngay dundal loo xam te ne dundalu la de retour fallait que ma débarque dem wuti loo xam te ne peut-être dina nekk ndëgër laay donc moo taxoon ma daw génn nekk nekk ci yeneen business nekk samay job affaire yooyu di ko taxale mais tey alhamdulilah. ba bon affaire yi mu ngi yemb mu ngi nice donc j'ai le temps parce que sama job bopp laa nekk donc amaat naa temps wu rab quoi pour mën a nekkaat ci game bi génne tamit li nekk ci man waaw parce que tamit talent moom bu nekkee bu xasee nekk ci yow rek mu ngi ci yow même boo bàyyee boo dellusiwaatee la nekkoon ci yow noonu day yeewuwaat da doon nelaw rek da nga koy yeewaat donc noonu dëgg la bi euh, mu ngi ci yow mais gis nañ ne bëri na ay jeunes rappeurs yoo xam ne percé nañ gem bi tam am na ay coppite yoo xam ne am na ci euh, yow bu ñu doon ñëwaat tuuti ci si ndorteel li yan rappeur nga jamonoonteel ñoo xam ne euh, peut-être yéen a démarré ndoo ci gem bi. waaw bon ñi ma démarré ndoo ci gem bi bëri na bëri na lu ci mel ni ay ay Ngaaka Blindé ay Dip Doundou Guiss ay bëri na quoi bëri na ay Balvada ay Bril Fight Fo ñooñu ñun ñëpp pratiquement ñoo ndorteelandoo ñoo ci nekkandoo woon xam nga mais nag man fi ma ko tàmbale waaw waaw dañ doon tasse lu bëree baree bëri dañ doon tasse ci ay battle ci ay concert ay concours yoo xam te ne dama koy jël yoo xam te ne dama koy perte mhm. whatever bëri na lu ci mel ni fair play show maa ko lu ci mel ni double H no limit maa ko gagné bëri na quoi bëri na top talent mbuur affaire yu bëri quoi waaw nekkoon ci nekkoon ci di ko teewal di ko xasal di ko xendal ba bon yàlla dogal tey ma nekk ci ba tey di ko teewal génne benn sound def ko image affaire bi commencé éclater di def ay affaire yu nice donc ñu am espoir ne peut-être lancé bi ñu nekk buñ ko bàyyiwul dinañ ci am dara quoi. vraiment balaa ñu ñëwaat ci ci production yi nga xam ne am nga ko en tant que rappeur lan mooy stylo Ra tey ban façon rap ngay def. ba bon pratiquement man sama ndorteel. rab bu dëgër laa doon def bu ma xaat koor bi bu ma gisee kuy def beneen façon sax dama naa kii lu muy def nii mais loolu peut-être ndorteel la woon quoi mm-hmm. mature gu ma woon amaguma woon ouverture par rapport ak affaire yu bëri quoi mais bon donc booy dem au fur et à mesure da ngay xam ne musique bi amul frontière rab amul frontière te rap dafa am lu ñuy woowee ay sampling ay nangam ak sangam et musique et l'art de combiner des son de manière à plaire donc rab laay def rab musique la donc j'essaie de combiner des des des sons de manière à plaire moo tax donc du ma tënk sam bopp ci fenn du ma ne façon rap bii laay def façon rap bële laay def mais lu ma sentir war koo def rek dam koy def. en tout cas na na na nekk loo xam te ne dina neex public bi te avant moo neex public bi naa fexe aussi mu neex ma man parce que lu jóge ci xol ci xol lay dellu. wala bu ñëwaatee léegi ci wàllum production yi tey lan euh, la ñu mën a jàpp ni euh, teg nga ko ci marché bi euh, pour ñi nga xam ne ñoo lay bëggee mun ko consommer lu jóge ci aw waa bon pratiquement tegaguma dara ci marché bi maa ngi job di def ay ay single di ko lancé donc ba ma ba ma ci nekkee 2008 jusqu'en 2012 maa ngi doon def ay sound lu ci mel ni jëf ak borom def naa prêt pour le règne def naa jamonoy tey def naa amul yàqalaate. bëri na sound yu ma doon def mais sound yooyu noonu yëpp pratiquement sama sama ruq la doon yem sama koñ la doon yem samay nit ñoo ko doon déglu waaw peut-être parce que Sénégal moom système bi nu mu demee ñun ñëpp xam nañ ko donc góor jàpp ci góor jàllale góor moo fi am donc boo gisul góor bu la jàllale rek day xaw a métti quoi donc moo tax pour nga am promotion ba pour nga am son yi kalaate il faut nga am koo xam te ne peut-être moo lay épaulé koo xam te ne moo lay teg loxo moo moo lay teg mbagg ba pare nga nekk booyu kenn ci grand yi donc te peut-être am na ñoo xam te ne yi nañ loolu am na ñoo xam te ne bon new ma nag man moom ci loolu laa bokk parce que man garab bu la sutul du la may ker donc garab bu ma sut dama koy jéem a jege pour mu may ma ker. sama retour moo tax son boobu dama koo togg dama jël sama temps xool lan moo li nga xam te ne public bi loolu la soxla actuellement ma def ko ma maanaam rap la mais bit bi dama ci def ay sample ay tëgg. mooy maanaam dafa am lu ñuy tëgg ndigal cheikh ndigal doolay bay Fall cheikh ndigal tëgg boobu laa jël sample ko ci bit bi léegi donc teg ci samay lyrics tudde son bi Bigili Bang mhm. Bigili Bang laa tudde son bi mais Bigili Bang bi damay conscientiser par rapport ak population par rapport ak jeunesse bi nu ñu jàppee sexe nu ñu jàppee affaire yooyu parce que euh, li ma ciy wax mooy fu foowum góor ak jigéen nekkee tat Bigili Bang jikko wala jamono la nañ Bigli Bang tey yaay nekku fi nañ làqatu def Bigli Bang te or ka warul demee noonu même bu fi yaay nekkul waruñ làqatu di def Bigli Bang léegi donc boo dégloo lyrics yi loolu laa ciy wax quoi damay conscientiser c'est ça c'est ça jeunesse bi quoi. waa le 25 incha allahu rabi maa ngi war a génne benn son son bu tudd wanget. Eh, a mën a bon pratiquement son bi boo gisee li tax ma inspiré ko parce que Sénégal dañu am tendance lépp looy def balaa muy avancer nit ñi ku ci nekk dugal ci sa làmmañ wax ci loo xam te ne day ëpp ba dañ lay gémmañu ba loolu noonu dootul antu te làmmañ gisul jigul bant asamaak nit donc te Sénégal am nañ tendance bu ñuy wax duñ ci boole macha allah duñ ci nangam ak saam léegi donc loolu laay déplorer ci son bi mm-hmm. waaw. ci genre affaire yooyu laay wax. genre tojal merci beaucoup parce que olof de dafa tàmm am tendance su boo rombee ñu ne i diw am na alal de mu ne juutu naa la wanget mm-hmm. waaw loolu synonyme fatilan kuf ma la macha allah geenu geenu golo bàccu mala la yooyu ay synonyme la quoi. Mm-hmm. léegi donc damay jël bi nga xam te ne moom lañ gën a fawe ma exploité ko def ko son def ko refrain toj ko. gars yi mën ci jëriñoo. ak a a sañse dafa bëri mani boo ko seetloo dafa gangsa guf ma la nga puj mani ñu ngi lay woowee xale xale xale bës xale carte gaab di la faxatal ba ñu dafa weex deret moo ko lal booy xoogale ñu lay naxasal ak a bëri doole man mbër mii moo may daaneel ñu ngi lay gasal kàmb boo ci bët xee ji wuute keneen bu leen moom ak a ëmbal ay loxo si poos mooy xale succès yoru marto te moo koy dooj xale cheveux xale make up xale def def ba mu tëb tonton grand dafa coofee tata jànk moom dafa